ngeen wax ak sénégalais ñu dégg ko without violence. xam nga xam nga <laughs> tey jii nii xam nga tey jii nii yi ñoo ngi wax ak ñoom ñoo ngi déglu mais Sénégal dafa am tradition boobu ba tey maa ngi leen di wax 2011 comme tey li fi xew dafa bees ku suivre l'actualité politique sénégalaise xam ni amul lu fi bees les résistances ont toujours existé. le président Macky Sall lii muy jàppee nit ñi ci Facebook yi partout ku wax mu ni appel à l'insurrection mais moo formule bi gën a doy waar en son temps en 2011 le président Macky Sall moo ko wax moom moo taxaw vidéo bi mu ni Ablaye Wade le président Ablaye Wade bu bëggee troisième mandat on va le déloger du palais vidéo bi mi ngi daw est-ce que le président Ablaye Wade en son temps toppee na ko quatre 80 atteinte à la sûreté de l'État wala li nga wax ëpp na parce que réew da ngay bu la yàlla mayee nga war ko jiite da ngay xajoo lu bare man mii mënuma leen wax damay jiite réew te ku ma wax ma tontu la ku ma wax ma topp la non. mais bu ñu bu ñu bu ñu ñëwee juste. monsieur Fall da ngay euh, dënn très largement. mais institution mën a supporter. il faut qu'on respecte les institutions aussi. le respect des institutions n'a rien à voir avec aussi. les libertés a encadrer gis nga fii seen kër gi loolu la bañ bañ bañ bañ léew fi bëgg wax boo ko fi waxee dans le respecté bàyyi la nga kon ne di liggéey. waa monsieur Fall mais bu ñu ñu dellu si jaadu bu ñu bu ñu dellu si si yow. parce que nekku du royaume on est en démocratie. d' accord mais dañu bëggoon dellu si dellu si yow par rapport aux aux euh, élections yi ñu jëm mu bëggoon nga nga leeral un peu euh, et sa militant yi ak sénégalais yi. Euh, yow xam nañ ne en le 22 juin 2022 amoon na condamnation boo xamante ne tegoon nañ si yow muy 6 mois sur à euh, sortie du sursis et si je fais référence à à à l'alinéa 4 la loi euh, c'est la loi 29 du code électoral. dafay wax ne la carrément que ki nga xamante ne condamné lañ la si peine yu mel noonu doo bokk or yow créé nga sa parti et jàpp nañ ne da ngay dem est-ce que tey mën nga ñu leeral. mën nga ñu leeral fii nekk euh, par rapport ak ak li nga xamante ne am na même si de notre côté il a qui euh, qui les dispositions de de de 95 92 à 95. très bien voilà merci de m'avoir posé cette question d'ailleurs parce que depuis lors maa ngi gis ku nekk bind ci mais comme li ma leen di waxee rek vraiment du man maay ku wax ma tontu la c'est pas mon style mais merci de m'avoir posé cette question pour mu leer une bonne fois pour toutes. effectivement il y cette disposition au niveau de l'article 29 mais boo demee article 31 alinéa bu mujj bi ñoo ngi naan la ne sont pas concernés ceux qui sont condamnés par les articles 92 à 95 du code pénal mooy ñi nga xam dañ leen condamné ci lu jëm ci ay manifestation yooyu et moi j'ai été condamné par l'article 95 moo tax je ne suis pas concerné du tout donc moo éligibilité n'est pas du tout touchée parce que nag nit mi ngi manifester parce que li lii neex ko nga ni que parce que manifester nga rek doo doon candidat bu fekkoon démocratie bi foofu la toll après xamuñu lu muy nuru donc merci de m'avoir posé cette question pour ma clarifier ko c'est l'article 31 qui m'exclut ci champ wu inéligibilité bi je suis bien éligible mais loolu du du problème parce que dal rek moo ma ñor xam nga lan moo ma ñor li dal askan wi c'est-à-dire que man mii di wax ak yow tëj na ma 10 jours yi nga xam ni tegu ko fenn yéen ñëpp wax ngeen ci génn sa siège di xool le président Khalifa Sall ñu bloqué cortège am lan moo tax ñu bloqué ko génn gars yi pamti pamtee la dugal ci fourgonnette bi yóbbu pourquoi dañu jot une décision aussi simple que ça yóbbu ma section de recherche pendant trois jours pare section de recherche yóbbu ma prison Sébikotane pare yóbbu la procès ni la six mois avec sursis mais loolu dans un pays normal fan lay amee pour dire que des fois il faut pa ngeen di yam juste ci conséquence da ngeen di remonter ci causes yi boobaa daa ngeen am yenn réponse mais mais causes yi itam bu ñu ci taxawee parce que li indi woon sa arrestation. voilà on avait rejeté votre liste. te finalement dem ngeen ba réalité dab leen ngeen participer ci élection yi bu ñu ñëwee également ci li xew ni mooy contexte bi mooy Ousmane Sonko moo am problème ak Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang porte plainte pour diffamation Ousmane Sonko di dem ne day yóbbaale gone gunge gone yi te chaque jour fii ñu ngi fii àtte ay citoyens yoo xamante ni affaire diffamation la kenn woowut euh, di attroupement te ku ne xam na ni tam manifestation boo koy def da nga war a obéir wala nga respecter ay règles monsieur Fall. déjà. ci li ma xam ci mbir mi mooy ku nekk am nga droit dem tribunal donc si le président Ousmane Sonko donne tout le monde rendez-vous au tribunal c'est son droit s'il di également que bu ma génnee fii laay jaar c'est son droit le plus absolu li war les forces de défence et de sécurité mooy fii nit ki war jaar nga encadrer ko mu jaar fa ba yegg fi mu jëm mais tu peux pas lui définir un itinéraire maintenant le procès li am visée bi am derrière nous c'est ça qu'on condamne viser encore une fois d'éliminer un candidat loolu la ñun mënuñu ko supporter mënuñu ci ànd te duñ ko seetaan parce que si ce rythme continue bu paree ci président Ousmane Sonko ci président Déthié la jëm yow mi boo amoon ambition suba fii nga toog nii Chérif Dia gannaaw waati suba ñu koleel la dara qu'est-ce qu'il veut mooy ñu ñëw 2024 il n'y aura pas de candidat il veut créer une pénurie de candidats quand tu une pénurie de candidats c'est une manière d'instaurer la dictature c'est une manière d'instaurer un royaume est-ce que loolu yéen ak li ngeen vivre ci démocratie sénégalaise ak li ngeen ci fekke est-ce que jàpp ngeen ni loolu nit wala a seetaan la fu président Macky Sall di créer une pénurie de candidats. mais pour un, pour, un procès qui, pour un procès qui n'a pas encore été enrôlé pour un procès qui n'a pas encore été enrôlé et un procès qui n'a un dossier qui n'a pas été évoqué au fond